salaam salaam gars yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam di wax rek xam nga rek gars yi moom téléphone yi moom kenn du ci am jàmm ay wuyu te c'est normal aussi hein c'est normal qu'on puisse euh, vraiment euh, di jël gars yi ñuy wax ak ñun ci téléphone yi se normal maa ngi nuyu ñëpp ah cat ba cat ku lim juum di wax rek ne fi nekk nii nag euh, tey dama dellu siwaat rek namantiku j'espère que daf blanc blanc bi de patriote en pour détermination euh, pour euh, Euh, mbir yi niñ ko bëggee te doom am benn problème ah démb gis nga jéem nañ saboté live bi lu ne ñu dugg ci mais bon avec conviction lañ ànd rek di def li ñuy war a def te di ko def ci affaire mbégte kon gars xam nga nu def ah balaa ma tukki xam nga ñi ngi téye sama passeport di ngi téye sama lépp mais man maa ngi tukki di dem di ñëw de <laughs> maa ngi tukki di dem di ñëw parce que ci maayen la tukki bi ci xel la man maa ngi tukki di dem di ñëw te nañ ko téye nag parce que ci juróomi weer yii des buñ la ko delloo sax buñ la ko delloo sax laa la wax lii war a commencé am lay téye nañ ko boobu ba léegi rek ko continuer téye rek ñun ku toog novembre ba léegi mën nga am muñ li doon la ci juróomi dañ téye lépp leen téye lépp ba février 2024 mille allah kon gars yi xam nga nu may def man daal damay def rek yow ci tube de l'été bi ñu gisandoo dégg ko xam naa gars yi duñ ci doyal du leen neex ñun du def ci biir du leen neex comme ñoom ci arbitraire lañ dëkk mais booy mën nañ woy de non woy bi dafa neex ko woy bi dafa neex comme li may wax rek comme ñoom duñu duñu duñu duñu ah, non dama koy teg di ko tegaat parce tey dama bëgg ñu bégee quoi dindi stress bi ah dindi stress bi waxtaan façon way bu dee lañ ma yónnee nag ah Non, non, ouais, va sur quoi C'est... Hein nii lañ koy jàppoo nag ajuma dañ koy def dañ ni wàcce tension bi ah wàcce tension bi waxtaan ah am na sax benn tur bu ko bëgg a def ajuma gars no dama ne patriotic. Kyle. Kyle.

lu tax ma di ko wax moo di ñiñ ko séq seen bakkan lañ ci teg li ma xam sax si seen affaire candidature dafa bari affaire bun joon nu mu duggee Aly Ngouille Ndiaye ah, yëpp jaxase bi ak kër ga na mu tasee ak coow la am ca biir kër ga ak lobby yi ci nekk loolu yëpp niñ ko téye fii amul dara luñ ci umb lu fanaan seen kër xëy si si ñun lu fay yendoog lañ wax ba ñu toogee ca hôtelu euh, New York bu sax yëg nañ ko mais yu baree bari mais li ma wax rek nit da ngay am fulla ak fayda benn moment nga xool li la intéressé nga focus si xam nga man damay wax duñ ma dégg la preuve fii ngeen toogoon ñii nga xam ne ñi ngi ci may wax na leen candidature yi ngeen di gis ñi yëpp tey leen ci ñu jàpp Abdoulaye Daouda Diallo day dem Abdoulaye Daouda Diallo amul tey damul rangé wu ci ginnaaw Amadou Ba mais soo leen xoolee ñetti fan yi nga xam ne New York ñoo def xew mu rus bi xew mu dagan bi xew mu am pas-pas bi ak xew yi nga xam ne moom lañ bëgg kenn gisu leen kenn ci ci ñoom kenn réseaux sociaux yëpp réseaux sociaux yëpp waa New York ñoo ko lëmbe kon li ngeen am déterminé ko moom ko téye ko seen loxo buleen ko may plateforme seen adversaire déedéet te dañoo nekk ci période pré campagne dama ne yéen nekk patriote gëm na réew mi dafa war a soppeeku lépp luñ war a def ci réseaux sociaux yi luy jëm ci soppeekul système bi la waaye waxu système beek seeni affaire ku mu neex nga wax ci man terewuma kenn ku ci wax ku nekk li nga gëm accès liberté mais de manière stratégique lay waxé ah néna Hein? dé contane nañu torop mais day am réew fu mu toll da focus sur l'essentiel légui ñu jëm ci lan ci parrainage campagne parrainage wara jëli retrait carte électeur dajalewul say nit ñu focus sur l'essentiel. Maintenant, man waxuma ko sax dama yobante wax El mali Ndiaye wax barki dem barki dem mo wax nako barki dem mo na leader kon day am fu mobiliser force ci li nga parce que mu neex mu réseau sociaux booyu Pastef yi militant Pastef yi kilifa Pastef yi ñoo ko téye nii seen loxo luñ ci bëgg mu siiw am buzz ñoom ñoo koy siiwal kon bu leen may ñële ba di leen tudd ak di leen wax ak ñoom ñi ngi seeni problème di ko làqati xam nga soo gisee tey président de la république sax moom ma ngay tiit di dànkaafu di menacé pële nu mu tudd man damaa déggoon reeram ak Biden de déggoon naa ko fi de déggoon naa ku de ku ñu yëgaloon benn añ xawma reer bu mu war a def ak Biden ba ba ko waxee ñu ne pression xew mu riis mi amoon New York moo taroon rek moo taxoon gars bëggoon wàññi bës bi bëggoon wàññi bës bi ah léegi nag bëggoon wàññi bës bi moo taxoon rek ñu créer na wéy euh, Macky Sall dafa war a añ ak Biden ak yooyu ma ne ko ah man Zelensky laa fa gis i ukrainien bi gisuma fa kii de ñu wàcce ko te defe naa moom tey la war a ñibbi si de tey la tey de defe naa tey la bu nekkee tey la 23 de loolu looloo defoon ci bi tey la 22 suba la war a ñëw peut-être suba la peut-être tey lay reer ak moom wala suba lay añ ak moom ah man xaw ma loolu moo tax. tey damay waxtaan ak diaspora damay waxtaan ak ñoom démb ah ñu waxtaan ci lu bari ma xool ndax naa ci am ñenn ñoo xam ne pare nañ ku ci mel ni Ousmane euh, Tunkara wala ma xool Marie-Jeanne mi nekk coordonnatrice coordonnatrice bu euh, Pastef Cheikh Anne ñoom ñëpp waaw hey Seydi Ousmane. waaw Seydi Ousmane kontaan naa ah. mbaa xam nga looloo xew léegi ci kii bi kontaan naa moo xew de mbaa yow yaa ngi kontaan rek. ah gars yi yéen a ngi dégg Ousmane wax nee na ñoom ci kontaan lañu dëkk mais masa coono nag masa coono Ousmane. senegal moo ko jar Sénégal moo ko jar. ah yéegalal baat bi tuuti na jotul xam naa ne baat bi dee na yuuxu nga Macky Sall dictateur ba sonn mais yéegalal baat bi tuuti. non ma ne ma ne ma jar Sénégal Sénégal moo jar lépp pour Sénégal Sénégal jar. voilà très bien léegi Ousmane dama bëgg nga waxtaan ak sénégalais ñëpp ñu ngi lay déglu nag. Sénégal gi yëpp ñu ngi lay déglu xam nga man su xewlee ba toog gars dañuy ñëw déglu. ci fulla la ñuy dox macha allah yow xam nga xamante nañ bu baax a baax alors euh, Ousmane li ma lay njëkk a laaj moo di la xewoon New York ak engagement bii ñu gis ci diaspora bi ah lan moo ko waral lan lan moo ko waral pap maa lay baax a baax a baax di nuyu nuyu vraiment sa auditeurs yi yëpp à travers le monde ndax ci laa bokk ndax saa boo taalee wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ñëw dégg ndax ñu nit dañuy ne euh, xalif généralu euh, communicateur yi ndax wax dëgg yàlla euh, bañ la xamee ba léegi xam la ci dëggu ak teg donc ma tàmbalee loolu d'abord di massaw aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci naqar ci Sénégal mais Pape li waral situation bi defe naa tey warul bett kenn te ñëpp xam nañ ko ci àdduna ndax réewu Sénégal tey recul démocratique bi fa am sax duñ ko tàmbalee waaye déjà doomu aadama yi seen ak ak seen yelleef muy lu ñu moom muy ay marche ay droit de marché ay droit de manifester loolu yëpp ñu xañ ko doomu sénégalais yi te amul fenn fuñ ko teg nag ma fu jaay doole ma tey rek donc yooyu ak yeneen yu bare baree bari ku lim ma nañ ci toog ba suuf ma di lim injustice yi nga xam ne vraiment bo jiitu réew mi mi koy teg doomu Sénégal yi recul bi am Sénégal amul depuis temps Senghor te ñun ñëpp xam nañ naka nga mën a nekkee ci am réew quatre vingt personnes faatu vraiment mille huit cent personnes nekk ci kaso amul benn amul benn commission d' investigation bu ñu teg pour ne nañu saytu la moo dal doomu aadama yi

bi ngeen xam ne def ngeen ko mbir mi xam naa loo leen waaj la lu yàgg la ak nan ngeen ko organiser ba mu porte ni ba euh, ki may bañ a tudd hôtel bu mu dem génn wala policier yi daal moom daal li muy def sénégalais yi fii lañ ko def New York. well euh, loolu sax dinaa la ci yokkal sax xëy na loo yow xamuloo ko woon. Mhm. fi may wax ak yow waaw. di ma xam nga xam nga man kañ laa xam xam nga man wóoruma sax dem fi may wax ak yow nii wóoruma sax ne dem. Mhm. mais xam nga naka laay xamee présence su Macky Sall ci dëkk. waaw. damay xool sama rétroviseur oto rek gis agence secret yi ñu topp. ah bon cinq agents secret ñoo may topp ci suba ba guddi. parce que tout simplement moom dafa ragal la mu la mu bañ a may nit ñi Sénégal moom la bëgg ñu defal ko fii mooy ñu sécuriser. parce que nee na bu fi ñëwee sénégalais yi dañ koy faagaagal yaa yoo Macky Sall nee na moom bu ñëwee Amérique sénégalais yi nee loolu moo tax fu sénégalais yi di nekk ñoom ñu indi fa sécurité bu jaggi dayoo boo xam ne président Amérique sax amul donc ba comprendre yow ngay buur yow ngay bumi yow ngay euh, euh, lion sa dëkk nga de waaye nga génn dem réewu jàmbur ñemewu ba ragal bi tax na tax na sénégalais yëpp dañ xool ñun ñëpp nag waaw ah, loolu problème la voilà loolu benn la mais fa planification boobu wax gis nga daaw mhm. daaw déjà moom Macky Sall moom xamul ne yenn saa yi dollar mën naa inspiré borom xel waaw parce que moom Macky Sall ndax yaa ngi fàttaleku daaw bi mu fi fayee benn société américaine ko bindoon sax. Mm-hmm. mu fay su benn société américaine deux cent mille dollars pour ñu defaral ko au niveau international. ok. société américaine boobu ay vélo la ñu jëloon di ci taf ay photom di wër dëkk. Mm-hmm. léegi loolu ñun mu inspiré ñu ne doomu aadama bi image am rek moo ko intéresse léegi nag comme am rek ko intéressé au niveau international te ñun ñu am ay image ay preuve à l'appui ci Sénégal te ñun ko woon àdduna bi ñu gis ko ñun dinañ ko ko defal ci façon bu gën a moderne te lu mat kenn wàllu kenn wàllu kenn wàllaat xaalis bi nga xam ne moom la utilisé la moom il a utilisé deux cent mille dollars bu ma deux cent mille dollars am yooyu boo ko divisé par diis ñun dépense am doo et pourtant réussite bi am ñun ci suñu bos moom jëlew ko ci deux cent mille dollars ah bon donc planification la laaj mhm. dañoo jël waxtaan ci suñu biir du benn Sénégal rek du benn nit mhm. waxtaan ak borom xam-xam yi ndax image yu bari macha allah euh, Dakar matin mhm. jàppale ngeen ñu ci ay image amu leen woon liñ koy doyee nag waaye bis mu nañu laaj leen image te <laughs> leen ci ay vidéo jàppale leen ñu ci ay nag jàppale leen ñu ci lii ci laa mhm. vraiment yàlla dimbali ñu nag lépp loo xam ne laaj nañ ko rek ñëpp di dajaloo ñu indi ko ba macha allah ñu am ci succès biñ ci am nii ñu ciy jaajëfal nag totalité def na ci loxoom mhm. journaliste bi def na ci loxoom maanaam les les les coordinateurs les coordinatrices maanaam les euh, les communicateurs ñu bare bare bare kenn ku nekk ñeme ku lim juum am na ñoo xam ne sax ñeme wu ma tudd seen tur ci Sénégal a nañ ci. boo ne ah diw boo leen ñu mën a jox lii ak lii ak lii ñu indi jagal donc dafa bari daal képp xam ne Pape man nañ ko joindre rek am loo xam ne xam na ko ci senegal rek jéem nañ koo joindre vraiment mu indil ñu li ñu man te macha allah mu doon li mu doon donc nag dañuy ñun dañu mën a jëf rek. mais damaa dégg fii dama xool be benn émission dégg kenn ku ne.

Mm-hmm. xam nga xam nga man dafa am sa benn proverbe proverbe boobu nag ci yow laa ko jëlee woon damay gis nga koy liir lu bari. Mm-hmm. maanaam nit nit di wax safaan. waaw moom ci boppam mu xam ne li wax. moom ci boppam mu xam ne ñi muy wax safaan boobu xam nañ ne safaan lay wax mu continuer di ko <laughs> mais sinon ndaka nga mën a nekkee ci dëkk bu légal dëkk bu normal. ngay wër dëkk bu mel ni New York City muy capitale économique mondiale maanaam doomu aadama yi fi yeewoo Times Square huit millions de personnes huit millions d'habitants ñoo dëkk New York waxuma la touriste yi maanaam Times Square un million de personnes moo fay jaar par jour maam saa buñ màggetu tubaab yi xale mag ndaw ñëpp taxaw di filmer nga ne noonu noonu ñii li ñuy def intéressé wul kenn xam nga loolu nax sa bopp la loolu benn la mhm. deuxième bi Pape ay personnalité américaine damay tudd tur spécifiquement parce que ab respect mhm. Adriano España ah, dinaa la yónnee message bi ma yónnee personnellement parce que am na benn moment dama ko mas a woo ma ne ko diw mu ne waaw ma ko ñun dañu ngi am ay jafe-jafe yu tar ci Sénégal te gis nañu ne vraiment man ngeen ñu cee dimbali xoolal ñu fii xoolal ñu fa de eh, xoolal nga bu waa yow mënuloo sax ndeysaan ndax du vidéo xoolal agent secret ñoo nekk ni sama ginnaaw lëg lëg lëg de ñu ngi nii gis nga ñaari oto ah bon ñu ngi sama ginnaaw sama voilà léegi pour wax la rek continuer Adriano España Pape mm-hmm. daf ma yónnee message personnellement mu ne ma am na loo ma doon ñaan avant de ma ne ko lan la loolu pour ma am ñu ma toogal pour ñu waxtaan ci biiru Sénégal ma ne ko waaw mu ne mais ci sama saal laa toog ma gis ngeen def liggéey bu jaggi dayoo ma ne ko ban liggéey la loolu mu ne j'ai vu vos à travers New York foo leen tourner rek ma gis vidéo foo leen tourner rek ma gis vidéo ma ko ah bon mu ne ma waaw mu ne mais pourquoi ne pas faire la même chose ci ñun fi ñuy liggéey ci congrès ak Sénat ah ma ko en tout cas de toute façon sénégalais yi ñu ngi ci seen ay planification ndax lii dafa tàmbali rek waaye kenn xamul fu mu jëm Pape fi may wax ak yow nii tey nit yu yónnee na ma article sax ay mbir ma fi may wax ak yow léegi léegi article bi boo demee ba ci suuf defe naa yow gis nga ko ndax journaliste waaw boo demee ba ci suuf bu article li nga fay lire mooy ambassadrice Thomas Greenfield ki nga xam ne moom mooy représenté Amérique Nations Unies mais pourtant dafa ne Macky Sall ci biir waxtaan yi mu am ak moom yenn yi intéressé wu ma ay waxtaanu Haïti ay waxtaanu Niger mais comme yooyu intéressé wu ma Sénégal ma intéressé nee na ko na fexe organiser ay élection présidentielle inclusive yoo xam ne ñëpp a ciy bopp mhm. comprendre mhm. absolument te li nit ñi xamul Amérique te li nit ñi xamul ci Amérique ak yeneen réew yi ils vont directement au point ñoom bu ñu amee pour wax la ceebu jën naan la maafe nga ciy def ak carotte nga ciy dugal ak kaldu wala jaxatu nga ciy def ñoom duñu wax lool dañ lay na ceebu jën donc ce qu'elle a dit à Macky Sall c'est officiellement dans le livret des USA maanaam lépp loo xam ne Amérique daf koy def dañ ko ci bind lool loolu daf ciy nekk mhm. dafa organiser xam nga ñoom li tax ñuy wax lii ëllëg ko waaw parce que gis nga réew yi am coup d'état yëpp ci biir Afrique Mm-hmm. quatre-vingt-dix pour cent de ces pays ont été bien informés par les états parce que bu leen fàtte ne CIA mm-hmm. maanaam CIA ñu ngi ëpp Central Intelligence Agency la tudd ñu ngi fépp ci réew buy waaj am coup d'état sax dañ koy xam réew buy waaj am coup d'état sax ñoom CIA dañ koy yëg ñoom ñoo koy njëkk yëg ci àdduna mais la plupart des temps duñ ci nangu dugg parce que day fekk avertir nañu njiitu réew yooyu dànkaafu nañ dem ne leen mhm. ah sa mi ngi am jafe-jafe de xoolal nga def li gën boo ko defee ñoom dañuy ànd ak yow mais boo ko deful ëllëg ak si biir boo amee jafe-jafe paam dañuy ne fàtt di la xool mhm. la kenn nax manoo nekk ci diggu Manhattan New York nga yëngal dëkk bi ba meeru New York gis nga fu ñuy dem laataa fa fay yegg day fekk maire New York déployé na déployé na fa police New York bi yëpp donc loolu yow nga ne ma kenn yëgu ko ci àdduna <laughs> yow nga ne ma kenn yëgu ko ñuy dem on trouve deux cent trois cent policiers taxaw baare yoon bi yëpp yow nga ne ñun fu ñu dem kenn yëgu foo yëgul kay baat kenn du fa de mm-hmm. fu ñu di mm-hmm. léegi euh, Ousmane Ousmane est-ce que Bir Nations Unies am ngeen fa ay contact parce que car bi yóbbu ngeen ko fofu gaay alors est-ce que Bir Nations Unies contacté nañ leen pour am plusieurs pour informations. Mhm. les associations de droits de l'homme des associations euh, euh, Madame euh, association américaine. Mhm. Madame association boo xam mhm. waxuma la woote mais dañuy ñëw fa ñu taxaw ci boppam ñu jël information yi leen di jox yëpp suñu ay contact yëpp ba pare ñu dem di ñuy yónnee ay email preuve à l'appui nañu lii ngeen def nii mas mm-hmm. Pape dinaa la may dal mm-hmm. est-ce que xam doon diffuser mm-hmm. ci New York New York kenn diffuser image yu illégal est-ce xam nga loolu yow laa loolu parce que xam nga bi deret bi mm-hmm. ñoom nangu wuñ bu diffusé loolu ngi ci biir parce que loolu ñu doon tourné ci dëkk bi di ko tourné di ko tourné am na ñoo xam ne buñ ko gisee daf leen doon defal traumatisme ba sénégalais yi ba ci américains yi da ngay romb doomu aadama mu gis image yi rek mu jàpp bi dem bu la laajee nga ne ko ay nit la yu ñu rey Sénégal moo reylu nit ñi nit ñi dañ leen dóor ay bali ay policier ak ay nangam daf lay ne lii naka la mën a nekkee nga ne ko ay malice ay milice ñoo am ñun ci suñu dëkk ñun mais daf may laaj mu ne ma seen dëkk guerre civile moo fa am wala ma ne la ma ne ko pourtant non ñi ay manifestant lañu ay nit ñu doon manifester seen i ay droit ñoom la ñu fetal bi du te kenn yorul arme nekkul nekk c'est des personnes armées wala c'est des personnes qui faisaient quelque chose illégal di def loo xam ne ñoom constitution moo leen mais ñu ne ma naka ngeen mën a ñun ba tey ñuy yëg ñu ne loolu moo tax ñu indil leen image ndax li waral image yooyu mooy dañu wax àdduna bi ba sonn at bari dégg mais am ñu bari ñu déggul wala suñu gars yi boo rek ñu wet léegi ñun benn point la ñu amoon génne image yi et les mettre à l'appui maanaam preuve à l'appui maanaam lépp lu ñu rek ñu indil ko doomu aadama yooyu ñu gis ko te parce que léegi de léegi moving forward comme li nit ñi di wax jëm kanam mhm. dañu dul mayati benn autorité sénégalais muy police te bu chef de police Sénégal ñëwoon Amérique te ñu xam fi mu doomu adama yi rey lu yëpp dinañ ko ko defal ci oto dem taxawal ko ko ci kanamu oto la bu bu ministre de l' intérieur Sénégal jóge woon Sénégal ñëw ci Amérique bii wala dem Europe wala fépp fu mu mën a dem ñaawteef yi mu def yëpp dinañ ko yóbbul waa bépp autorité sénégalais wala tey c'est c'est c'est c'est sage de du conseil constitutionnel ñu defoon benn njaaxum boo xam ne tey jar na la indi na fi problème kenn ku nekk ci ñoom ak fu famille mën a nekk ci àdduna bi tous les images seront mis à l'appui seen preuve pas caaxaan yooyu moo jeex Sénégal Sénégal comme sénégalais yi tey amatuñu yoon ci biir dëkk bi waa mhm. ñun dañu fas yi pour lu ñu man ñu ñu ñu def ko fi ba Amérique rek ndax waa France ñu ngi wax ak ñoom waa Allemagne ñu ngi wax ak ñoom waa Suisse ñu ngi wax mhm. Chine ba Japon diaspora bi yëpp dañu bëgg ñun ñëpp même chose ndax lu baax kenn du ko changé loo def mu baax doo ko changé comme léegi vilipender Macky Sall ak ak gouvernement am bi moom moo ñu tax a jóg. Mhm. fexe lépp luñ information bi jàll à travers le monde lenn rek nag comme ni ma la koy waxee toujours lenn rek moo ma ciy génnee nag mooy mu relâché Ousmane Sonko mu delloo ko ay droit parce que moo amul sax ay droit am ndax Ousmane Sonko ñàkkul benn droit mais mu relâché Ousmane Sonko may ko jàmm. ndax réew mii Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk baab mhm. yow da ci am walla man ma ci walla keneen am ci walla donc je pense que du ñu Sall tarfatal ay muy jàpp ku mel ni Ousmane Sonko di mhm. kon daal yéen li ngeen di sàkk mooy élection présidentielle yoo xam ne ñëpp ñu war a bokk nañu bokk Sénégalais yi tànn ku leen neex comme président mais loolu mooy may dëkk àdduna yëpp jàpp dëkk hmm. boo gis mu am jàmm ci àdduna bi yëpp ki nga bëgg man ma indi ki ma bëgg ñu ku man sama hmm. mais Macky Sall du am na bilan Macky Sall nest pas nee nañu c'est meilleur président de l'histoire du Sénégal kay bi ku mu indi dina mu ci hmm. sama xalaat bu di président de l'histoire du Sénégal pour man nañu indil candidat mu teg ko te mu bàyyi yeneen candidat ñu ba moom kay bu boobaa defe naa bërëb bi comme ni ko mi mu moom moom est le meilleur président de l'histoire du Sénégal moom candidat moo moo gën baax moom Macky Sall li mu liggéey Sénégal kenn liggéey moom moo ñu barke moom moo ñu a baax gën a baax ci àdduna mais Pape da Macky Sall moom candidat mu teg ko te mu bàyyi doomu aadama yi ñu indi seen candidat yi teg ko caaxaan mu nekkee Macky daf ko war a bàyyi ndax Sénégal liñ niñ ko réewu jàmm Mm-hmm. Sénégal kenn bëgg fi problème ndax li ñu man bokk avec mes petits cinquante ans te di dégg nag mel ni yéen ak ñeneen li ma gis ci Sénégal man mosuma ko gis daal ci Sénégal man lii mosuma ko gis. Mm-hmm. et Pape moi j'ai ma gis ci nguuru Macky Sall bi man mosuma xalaat sama xel man li dama ko ay Rwanda ay yeneen dëkk waaye nga ñëw ci réewu Sénégal bii. ñuy tuur deret léegi comme ndox comme meew warul amee noonu mhm. donc loolu moo de ñun de fas nañu yéene incha allahu rab tant que Macky Sall doxalul yoon ci Sénégal tegu fa ay élection inclusive ak yu transparente ah dina dina tar fii ak deux mille vingt quatre de te day tar di continuer na mhm. euh, Ousmane euh, maa lay aha sa kàddu gu mujj lan lay doon sa kàddu gu mujj lan lay doon. en tout cas suñu kàddu gu mujj mooy ñu ngi rafetlu déjà liggéey extraordinaire boo xam ne a ngi koy def yéen ñi nekk ci euh, ma ko permettre aussi Pape ma vraiment jaajëfal journaliste yu mel ni yow Massaw leen ñu mel ni ñoom Pape Ndiaye ñeneen ñoom Coromaxu Mandela maanaam Pape bu lim juum. am na journaliste yu extraordinaire yoo xam ne def ngeen liggéey bu baax ci Sénégal waa jii ne doo leen ko fi waxee yow rek lañ fi gis tey nga des ci ci plateau télé di wax li nga xam ne moom mooy nit ala jéem na leen noonu ñuy jaajëfal aussi yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen chaîne yi vraiment ñu leen di jaajëfal bu baax ñiy liggéeyal Sénégal laa wax waxuma tappalekat yi tappalekat yi moom nañ leen teg na leen Pape may jaajëfal aussi may may massaw aussi détenu politique yi ñu ne leen mhm. ah kañ na mun waaye lépp loo xam ne man nañ ko pour adduna bi dégg seen baat pour adduna bi xam seen jafe-jafe pour adduna bi xam biir kaso bi te dara defu leen fa lu dul jaay doole Pape dinañ ko continuer def ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la remercier di la ñaanal yàlla nag mu continuer laa dooleel ndax Sénégal soxla na góor yu mel ni yow wa asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf aussi may jaajëfal Pastef USA Pastef USA waaw maa ngi waaj a incha allah voilà voilà di jaajëfal moo taxoon bëgguma moo tax bëgguma dugg ci ñoom trop parce que xam naa ne dina wax donc ko déglu incha allah di jaajëfal Pastef USA parce que def nañu ci mobilisation bi lu jekki dayoo foofu laa mën a yem asalaamaaleykum Ousmane Tounkara gis ngeen ko ñëpp xam ngeen ko ci détermination ak engagement bi mu am kàddu yi rafet naa xam mi ngi wax léegi les détenus xoolal Karim Gueye Cheikh Oumar Diagne tey dañoo rejeter encore seen demande de liberté provisoire léegi ñu def six mois ci biir kaso bi donc euh, euh, ñu rejeter encore seen demande de liberté provisoire xam nga man dangay ngay bi ba si yàgg doo mën a expliquer sax lan moo xew léegi damay jéem a wala ma ma def nii est-ce que du ma def nii. le temps may may may xool euh, soxna waaw Marie Jeanne <laughs> noo def maa yaa ngi ah yaa ngi ci jàmm baax li <laughs> nii laa la teeroo de lii laa la teeroo Marie-Jeanne lay wax ko lii laa la teeroo lii laa la teeroo <laughs> Sonko namm naa la ma def bëgg nga ma defaraatal la générique bi ah ma ma ma joxaat la générique bi bàyyi ma joxaat la ko ma joxaat la ko tuuti nga bëggee xam naa gën a jàpp formu pour mën a wax ak ñun ndax yi ma ne ma mayaat la tuuti générique bi ah waaw waaw déglul maa ngi euh, jokkoo ak euh, Marie Jeanne moom moo nekk coordonnatrice Pastef New York ah euh, Marie li ma lay njëkk wax mooy massa coono. ay waay Pape ñu ngi noonu ñu ngi koy wax ma la coono mu ngi noonu coono bu ko jar la sonn bu sonn xam ne jar na ko. waaw ayca léegi nag yaa en direct fi mu nekk nii yaa en direct ci live bi ñëpp ak lay déglu d'abord moo di. stratégie bi stratégie bi laa bëgg ngi expliquer ko gars yi parce que xam nga da ngeen jombal gars yi ci assemblée générale Nations Unies moom dafa wàcc ba ci suuf ndax waa Pastef. ay ca expliquer ñu. da Pape yëf xam nga fan la jóge waaw ci jooy bu metti bi. Hmm. jooy bu metti bi ak naqar bu metti bi Macky Sall di ko teg nit ñi. Hmm. di ñu ko teg ñun di ko teg ñi nekk Sénégal. boo gisee groupe yi xool yi ni mu méttee dañoo toog ne lii il faut que Macky Sall buy ñëw fii lépp li nga xam ne moom la ñuy sentir ñu sentir loo ko lu ko raw donc xel xolu boobu nga xam bu tàng boobu moom la jël translate ko transféré ko ci li ñuy def fii biir New York. Mhm. ñu toog waxtaane ko mu yokk ci suñu stratégie ñu yàq def. parce que PASSEF euh, New York PASSEF USA yàgg nañu def ay démarches auprès des autorités américaines. Nous mhm. les rek nous dañ ko doon def pour concrétiser li nga nous avons fait def pendant deux ans ñu ngi bind sénateurs yi ñu ngi bind gouvernements, nous ñu ngi bind maires. yi ku ci des yow état bi nga des say say say say euh, autorité xam nañu li xew Sénégal même buñ ci avons fait des ni ñu koy fait sax benn pas ba tey ñoom xam li xew Sénégal. bu mhm. UN bi nag moom c'était pour que ñëpp xam nag dëggantaan ñu concrétiser ko ak suñu camion ak suñu lépp vidéo wane na lii lañu leen doon wax mais donc loolu mhm. moom loolu moom ngeen gis nii moom la ñu yàgg a préparé yàgg a wax ak waa américains yi am na ñu ma dégg ñuy wax nekk que waa lii américains yi sax faale wuñu lii mais li du li ngeen gis ni du du loolu mo ñëk de dafa am lu yàgg lu lo xamné ne liggéey bu yàgg bo xamné ñu koy def ci ci suuf mom mo ñëw ñi tepp ñëpp gis ko ni té fi né ni paré guñu parce que suñu programme lañu tek stratégie yu bari lañu tek yo xamné makki dina bayyi Sonko makki dina may jamm wa Sénégal par la force mu neex ko mu naqari ko paré na na dem bàyyil mi suñu dëkk. mais léegi est-ce que am na suite.

ma ne terroriste yi ngeen di wax New York. <laughs> waa kay ñun. looloo ma reetaan loo ñu ne Sonko la ma ne ko américain yi ñu gën a xam Sonko de. ñoo leen ñoo leen gën a xam Sonko dama ne ñi nga xam ne mosuñu leen laal sax mooy ñi nga xam ne dañu doon romb di dem sax. bu ñu demee seen kër xool nañu kan mooy Sonko yóbbu nañu seen flyer toog liir ko américain dafa curieux hmm. loo xam ne dafay am mu toog di xoolee bokk ñoo ci eh, eh, eh, sénégalais nga wala africain nga xam ne dafay romb yoonam nekku du réagir dama la ñoom seen bopp mi ñu jël seen seen seen i kayit boobu seet kan mooy Sonko xool histoire du Sénégal mu jaral leen ñoom ñu bind seen sénateur ak seen i congrès loolu la américain ñun loolu la ñu ah, amee jàngal ñun super ok kon dafa am américain yoo xam ne dañoo saisir directement seen i congressmen

citoyen bu ñëw bind sa sénateur ne ko man dama dem jaar fii gis lii ak ak gis lii dama bëgg nga xool ci loolu beneen nit bind beneen nit bind da xool sénateur boobu wala gouverneur boobu du am choix il faut que mu xool ci parce que ay taxpayers ñiy fay seen taxe ñoom ñoo lay wax ne que lii liggéey bi man fii laa bëgg nga xool fa donc kuy wax ne li amul impact da nax sa bopp. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. voilà amul impact alors léegi yéen normalement war ngeen am programme bu continuer man bëgg naa ngeen. tarxiis ba Washington ah tarxiis ba congrès ba man yooyu yëpp daf ciy baax de wala. waaw mais damane ne par gis nga patriote yëpp ñooy xalaatoo la xalaatandoo la même chose gis li nga wax ni. Uh-huh. moom ci suñu plan bi. camion bii ñun ñu gis ni ñaari camion dañ ko yóbbu biir. ak White House. White House fu nekk lañ koy yóbbu. Eh, Pape dama ne li nekk ci biir plan bi li nekk ci biir eh, ni ñu waxee sax ci biir eh, stratégie bi kenn mënu ko wax. dama ne Macky dafay sede wala mu wala mu wala eh, eh, fii nii New York fii kenn dootu ko waxati. Hmm. New York ak am États-Unis yëpp yëpp yëpp ak état ñëpp dañoo nekk ci xeex gis nañu ne yéen dañ leen tëj dañ leen téye mënu leen def lu bëri jàmbaar yi dëkk yi ñooy nekk Sénégal di xataraay ñu mel ni yow mais dama ñun ñooy jël xeex bi ñun diaspora bi ñun ñooy jël xeex bi léegi. Hmm, hmm. nañu jël xeex bi te dinañu xeex ak Macky Sall. Macky Sall fi jaratu fi dara te dootu fi jar dara te képp fi jarati dara fi ci dëkk bi. kon yéen kon yéen bàyyiwu leen sax ministre yeeg yooyu ministre yi nar a ñëw ak ñoom yëpp bàyyiwoo leen bàyyiwu leen kenn. mais Macky Macky Sall avec sa bande. parce que dafa am ñu mu àndal ñu ñu not si wax sénégalais yi di jël suñu xaalis di ko lekk nu mu leen neexee sénégalais yi sonn ñun diaspora bi mille et quelques milliards la ñuy dugal par an pourquoi parce que ñun lu ñu am fii Sénégal lañ ko yónnee pour dimbale nit mm-hmm. donc loolu noonu ñun me loolu il faut mu arrêter te gis nga immigrant yi nekk ci biir mbedd New York yi mm-hmm. ñun nañu wut audience ak maire New York pour wax ko ne gis nga lii nga gis si mbedd mi nii parce que américain xaalisam da ko da ca man mii ak keneen ak keneen dafay liggéey di fay taxe mhm. taxe yi ñuy fay moom la ñuy jël di ko toppatoo ay immigrants yoo xam ne dañoo jaar nag Nicaragua ñëw yak si fii mhm. donc ñun dañuy jël audience ak maire bi pour wax ko ne lii nga bii nga am fii ci mbedd bi américain yëpp di kaas naan ñii ñooy ñan ñii ñooy ñan lii moo tax mu am mooy toroxal bi ñuy toroxal nit ñi Sénégal ak démocratie bi amul Sénégal ak li ñuy salfaañe euh, ak ak yelleefu nit ñi loolu dañuy def connexion bi bu neexee yàlla boobu tam beneen stratégie bu ñu war a teg la te loolu bu ñu paree fii New York nañu dem si état bu nekk na ko def ku nekk parce que état xale yi dañoo tas si état yëpp. Oh. immigrants si nga gis ne ñu jóge Sénégal dañoo dañoo tas si état yëpp donc état bu nekk yaa prob da am problème fi mu nekk nii nan nga leen di loger nan nga leen di toppatowee. léegi nag ñoom dinañu comprendre que ne Sénégal li fa xew moo tax xale yi di daw dina leer. ok alors euh, yéen a ngi waaj parrainage bi parrainage beeg yooyu yéen a ngi koy waaj. yéen a ngi waaj pare pare nañu ni. ñu ngi koy pare Pape yooyu moo gën a yomb ci xeex bi. waaw yooyu moom yooyu moom fii fii waaw fii Amérique ñun yooyu moom du du ay détail la pour ñun fii Amérique fii ñun ñoo ko moom fii ak feneen ak feneen diaspora ñun ñoo ko moom donc ak parrainage bi ñu ngi. mais li ma doon dégg ci consulat bi nag. est-ce que de coow li ma doon dégg ci consulat bi loolu il faut que ma laaj ko Ousmane Sonko que moom ni nga ko ca doon Ousmane Tounkara du moins parce que loolu ni ko ca doon euh, tudd. waaw comme d'habitude ay xale patriote dañoo mer Pape patriote dañoo mer. dem nañu foofu ñu def suñu marche mu am quelques personnes yo xam ne ñoo génn dem ci kaw euh, jaxase fofu mais lolu pour fi Amérique la fi daf dëkk droit la donc déjà ñi nga xamné sax ñom dañ leen interpeller gis nañ ne que ñom cas judiciaire bo xamné ne ñom déjà lolu Amérique da koy compté mm-hmm. boo musul nek am problème bo ñëwé ñu wax la ne kii dafa am problème ñom dañuy xol déjà yo ban façon citoyen bo nek citoyen bo xamné ne tu es modèle jusqu'à maintenant nga def ben erreur lolu ni lañ koy raxasse lolu amul sax stress Mhm. américains yi nii lañ ko dara eh, waaw fii dafa am dëkk droit la dañ lay jox sa ak ak sa yelleef teg won la ne yow nit nga jox la second chance joxaat la eh, joxaat la ay chance yoo xam ne di nga dem nga nga réparé wu donc loolu amul benn problème hmm. benn problème ci loolu te ñun tamit ñu ngi taxaw képp koo xam ne di nga ci dugg di nga ci am ah, problème wala nga amun ci ñu woo la ñun ñu ngi sa ñun ñu ngi passé ñu ngi taxaw sa ginnaaw di la di la jàppale di la di la di la di la soutenir ba ba kii bi ni muy jeexee nous on est ensemble on est solidaire xeex bi dañ ci bokk joxante loxo di xàccandoo di dóorandoo. kon daal nekk nii yéen a ngi ci biir daal yen takk ngeen ci ripp li wax takk takk ripp ci combat bi. waaw il faut ñu takk ci ripp comme ñun ñoo nekk ci dëkk bu am démocratie. Hmm, ñun hmm. amuñu dictature fii. waaw bon léegi il faut ñu ñu def liñ ci mën liñ ci mën a def rek. ah très rek lañ ci doon def kon car bi daal mi ngi waaj dem Washington. mais pour te dire ay car bi buntu White House dina doy waar de. dina fa dugg te carte bi bu ñu la waxee ni mu seere doo gëm ne que patriote ñoo cotiser takk seen biir pour fay ko. waaw carte bi bu ñu la waxee naata lay def par jour bu nekk liñ ciy fay doo ko doo ko gëm mais jaral nañu ko. fi mu ne ay denc ay yóbbu Sénégal ak kii Sénégal balaa ñu faa dem dafa yóbbu suñu xaalis ñu fekk ñu defar ko ba mu ba pare teg fa kiñ fa war a teg teg fa Ousmane sonk mi nga xam ne moom la fi yàlla indi. Hmm. bu ñu ko fa tegee pare bu looba ñu topp ñu doon toppaloo suñu xaalis mais suñu xaalis fi mu nekk nii papa suñuy nelaw aj nañ ko suñuy suñuy suñuy suñuy soxla aj nañ ko lépp pour ñu réussir affaire bi il faut ñu réussir Macky Sall ñu nërmel ko daaneel ko mu xam ne que nit eh, sénégalais kenn du ko jël du ko noot muy toog di la xool hmm. Marie Jeanne maa ngi lay sant di la gërëm Marie nu may def nu may def ma def nii rek wala ma def nii rek nga def ah ah <laughs> waaw waaw <laughs> ah te te dernier bo nga bëgg a wax waaw xaaral générique bi romb waaw ay ci rek léegi may maye gars yi kontaan <laughs> message bi nga bëgg a lancer ay ca lan la ay sa message bi lan la. voilà message bi dafa important parce que euh, waa Sénégal ñun won nañ leen euh, yoon c' est vrai que réalité yi bëri euh, du daal c' est pas la même chose. Mm-hmm. que Sénégal dañ noot. mais boo gisee nit ki noot dictateur bi di réussir dafa fekk ne nit ñi dañoo ragal. Mm-hmm. bàyyi ko muy def li muy def. lépp lu Macky Sall di def Sénégal bu Sénégal yëpp jëgandoo woon bon lii yëpp du fi am. Mm-hmm. donc ragal bi il faut ni ñu ko pour mun a xeex ak ñii nga xam ne Macky Sall et sa su loolu dinañu toogaat ci suñu dëkk. te bu ñu fi toogaatee nag lépp lu Sénégalais yi def nag dafa metti léegi nii xam leen ne dinañ ko multiplier Macky Sall dina ko multiplier par dix mille di leen ko def te du ngeen mun a naan donc balaay affaire bi di yegg fii fii fii euh, dictature dëgg ah cent pour cent dictature xeex leen ko léegi ngeen àndandoo bàyyi affaire euh, par parlo bi fii man Macky laa àndal man Sonko laa àndal lii il y va de l'avenir du Sénégal. Mhm. ak suñu alal bi ñu am fi mu nekk nii ah lii ça n'a rien à voir avec Sonko lii dépassé na sax Sonko Sonko xamul woon ne que moom bu woote woon nit ñi nii lañ koy toppee man je vois la main de Dieu boule bi dafa tourné suñu côté ñun waa Sénégal ñun waa Afrique ay bu ñu ko bu ñu rëccee Pape ay bu ñu rëccee bu boobaa yàlla dina dem lijjanti ñeneen de parce que fi mu nekk nii suñu suñu nekk di ko lijjanti. Mhm. donc fi mu ne nii sénégalais yeewu leen ngeen jóg ngeen takk seen fit Macky Sall ak bande motuñu sang. jóg leen yéen ñëpp bu muy papa muy yaay bu leen jiite sax xale yi naan xale yi xale yi papa ak yaay ñëpp war a jóg xeex taxaw seen puntu kër yi mbedd yi fees dell ñëpp xam na que sénégalais yi kontaan nañu peuple moo mën pouvoir moo mën état peuple moo mën état donc Sénégal jógu leen maa ngi leen di ñaan ngeen jóg parce que lii bu bu ko Macky Sall réussir rek c'est fini pour nous voilà loo rek laa bëggoon wax Pape di merci beaucoup merci ci sa ci taxawaay yow dañuy toog di la ñaanal lépp loo gis rek xamal ne suñu ñu ñaan la mm-hmm. ñun ñoo toog di la ñaanal tous les jours musuma la patte samay prière te patriote duñu la patte jërëjëf xoolee sa vidéo sax ñaan yi ñu lay ñaanal sax vraiment dañuy ko ñun daal kontaan nañu si yow Pape yàlla nañu yàlla may ndam li ngay xeex muy fulla ak fayda jom Sénégal tekki yal na ko yàlla may jërëjëf Marie Jeanne kontaan naa lool kontaan naa lool jërëjëf jërëjëf vraiment jël naa sa temps gis nga gars yi tey loolu laa waxoon de ne woon naa dinaa wax ak waa New York Cheikh Anne Cheikh Anne ci Cheikh Anne du ma ko fàtte Cheikh Anne ci tët tët Cheikh Anne du ma ko fàtte Cheikh Anne waaw Cheikh Anne il faut ma wax ak moom Cheikh Anne Cheikh moom il faut ma wax ak moom tamit ah gars yi gis ngeen de nii rek lañ koy defee tey stress lañ koy defee waaw kay Cheikh Anne moom du ma ko fàtte Cheikh Anne du ma ko fàtte j'espère que euh, Cheikh Anne euh, Cheikh Anne le tamit du ko parce que gis il est très très très actif euh, te il faut que ñu jéem ko Dougal, Momit it Cheikh mu bokk ci affaire yi maa koy jéem a ak pour mu ñëw bokk ci affaire yi parce que les day gën a neex rek ah, la détermination qu'on sent dans les propos de de la diaspora Les lépp fépp la ah. France ni ngi woon di man ah Cheikh sëñ Cheikh asalaamaaleykum. sëñ Cheikh baat bee dee yuuxu xaaral ma may la tuuti euh, essence bàyyi ma may la tuuti essence rek dafal ndànk rek ma may la tuuti essence tey ay may naa la tuuti essence voilà. dama lay may essence xaaral rek. dama lay may essence. fez. Ah, léegi may naa la essence xam naa na baat bi dee na mais léegi xanaa baat bi war na ñëwaat Cheikh. waaw léegi ah. <laughs> mais félicitations Cheikh vraiment pour le travail remarquable bi nga xam ne euh, Cheikh kenn du yow loolu la gars yi bind ci live bi ñu ne kenn du moom. Ceex sa détermination sa engagement pour le peuple sénégalais message véridique yi nga xam ne moom ngay def moo tax ma xam ne tey fallait que ma piquer la générique bi nga dégg ko Sonko namm naa la pour nga jàppaat forme hein, Hein? nga jàppaat forme voilà ayca yaa ngi wax ak gars yi nag yaa ngi en direct gars yi nee nañ da ngeen wàcce da ngeen wàcce New York ba mu nekk zéro waaw macha allah euh, sëñ Pape maa ngi lay ziar yow di rafetlu sa liggéey di wax ne lépp nag yow la ak ñi mel ni yow ak président Ousmane Sonko ak sénégalais yi nag suñ seen bopp ñoom it. ginnaaw ma leen nuyoo. Euh, gis nga daf ñu doon fiir defal ñu liste di ñu xaar aéroport ñun tamit ñu di ko fiir fiir bu yàgg. waaw yow moom dama lay wax benn affaire yow dama lay ñaan fii ak juróomi weer bu dugg si Sénégal. yëg naa ne ñi yaa waaw eh, ñun ñun bàyyi bàyyi nañ leen seen seen Sénégal ñoom. bañ ba liñ ci dese liñ ci dese nañ dem ne abal ñu incha allah. waaw kay ay ca euh, léegi ni ñu ngay déglu. Euh, waaw léegi euh, sëñ Pape. Mm-hmm. ñu ngi delloo njukkal tamit sénégalais yi parce que tamit boo xoolee ñun ñëpp dañoo bëgg Sénégal soppeeku moom waral engagement bi tamit injustice rek la ñuy xeex injustice moom ku nekk rek war na koo war na koo xeex parce que tey dañuy da ngay toog di xool di xalaat moom moo ñu yóbbee poussé ñu ba. ñun ñu mel ni ñu mel tey parce que mënu ma comprendre yow benn Pape Alé Niang boo xam ne moo la doon jox plateau ba ñu ba ñu bëri yow tey li ngay teg nii doomu jàmbur yow teguñ la woon sax loolu te terewul nit ñi dañoo taxawoon tem nga jël kooku nga dem ba yemale euh, mu ñàkk bakkanam ak mu dund parce que foofu la tolloon sa diggante ak moom. Mm-hmm. foofu la toll ak président Ousmane Sonko foofu la toll ak Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne dañ leen a torturé ba ba ba naroon a yóbbu seen bakkan. léegi nag foofu bu ñu fa ñun ñu si biti da doon ay nit di xalaat chaque jour dañuy xalaat solution moom moo ñuy jox ay solution moo tax ñu am xalaat boobu noonu. li ñu ko def. Hmm. waaye nag boole nañ ko ak àdduna yëpp parce que li yëpp ko doon nëpp euh, Pape. waaw ay délégation yu mag si àdduna bi taxaw nañ si coté bi laaj ñu ne ñu ndax lii fan la xewoon kañ la xewoon Sénégal kon lu ñu doon nëbbu la feeñ na. Hmm. Hmm. yoo xam ne yëpp si àdduna bi la nekk ñu taxaw expliqué leen gis nga euh, Inde. seen mm-hmm. délégation dafa ñëw ba toll ak ñun daal di eh, eh, seen xaw ma ndax président la bu dul président daal di ministre xam naa daal bu mag la. Mm-hmm. parce que cortège bi ni mu tolloon dañoo taxaw wàcc seen weer taxaw laaj ñu ñu wax leen expliqué leen ak Allemagne ak yeneen dëkk yu si bëri xam nga. Mm-hmm. Eh, waa ji nag moom am na lu ñu ko waxoon ñun suñ problème lenn la na bàyyi Ousmane Sonko mu bokk si ay élection ñëpp bokk na bàyyi génn ñi nga xam ne ñu leen tëj si kaso bi comprendre nga. su boobaa Sénégal Sénégal ñëpp la lu ñëpp bokk. xam nga li mu daj fii. yomb na de Macky Sall mosul ñëw Sénégal mosul fii di laaxatu. mosul hmm. ñëw fii ñu di ko barricade ñun dañ ne ko boo bala ngaa ñëw bàyyi Ousmane Sonko soo ko bàyyee bàyyi de tenue politique ñu duñ la def dara dañ la bàyyi yow nga dem nga nga dem dox doxal sa dox moom kese moom seul moo ne woon ci dëkk bii nii koo xam ne mënul génn président yëpp dañ doon génn di dox te sans cortège seen tànk. Hmm. seen tànk. Hmm. wallaay mais. waaw Cheikh. maanaam dañuy ñëw dañuy ñëw dañuy ñëwaat li nga xam ne Pape moom def na ko Sénégalais yi loolu rek moo tax am taxawaay bi. Mhm. waaw mais moom laa lay wax est-ce que Cheikh euh, Cheikh affaire bi da ngeen koy gën a wéyal fi mu nekk nii maa ngi dee jot léegi Marie-Jeanne ak Tunkara da ngeen koy gën a wéyal pour yeneen par par exemple man car bi gis naa ko buntu Maison Blanche. bëgg gis naa ko buntu congrès ba parce que même diaspora bi waaw diaspora bi pare guñu de waaw pare moom duñu ko def maanaam maanaam suñu diggante ak Macky dana dem ba wàcc ñu ñu ñu continuer di xeex ak moom parce que dafa def euh, euh, Macky dafa dafa ñu trahir maanaam faw ñu atte ñi mu rey ñi dee ñëpp si lii faw ñu atte leen au trahison au trahison lañ koy waxee mhm. faw ñu ate Macky Sall si lii nga xamante ne ay bakkan ba àdduna yàlla bu ko sakk bu ko yàlla sàkkee àdduna ay doomu aadama tax moom la gën a fonk. Mhm. parce que ñooñu la gën a ñàkk jox cër. Pape tey yow yow man benn si man bëri na ñoo xam ne gëmuñu woon ne yow di nga dellu si waat ñoo jàppoon waaj da doon yóbbu sa bakkan parce que loolu du dara si moom foofu la toll. ah du dara foofu la toll Ousmane Sonko yaa dafa dem ba bakkan bu dee nekkatul problème si moom ñu ko siy jàppale nag naan ko yow ah téyel fi nga téye te te te ñun ñun. yow musoo mm-hmm. musu amul ki ñaan ñàkk na bakkanam si discours Pape Alé la jaare ñàkk bakkanam amul benn benn ñii waa Pastef ñoo ko rey waaye daf ñoo présenté si adduna bi yëpp comme terroriste ñun dañoo ñoo wan tubaab bu preuve wan leen ne kii mooy terroriste bi kii mooy reykatu nit bi comprendre mm-hmm. Mm-hmm. te ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ ko waaw ñun lool ñun loolu la lañ ci soxla woon weer nañ ko yàq na boppam voilà te a ba muy wàcc fu ñu ko fekk danañ danañ danañ xale yi ñu àtte ak moom incha allah. ah Cheikh kontaan nañ ci ah, ak yow ah. vraiment kontaan nañ sa réaction maa ngi gis na baat bi ba léegi ñëwagul de mais yéen am ngeen pass yu neex yooyu yuy am lem beeg yooyu nga xam ne boo ko màccee day delloowaat dellu siwaat euh, corde vocale <laughs> supp dañu toogal supp man Tunkara ak yi ñoon foofu envoyé ñu ko suñu kër ñu waaw gis nga naan leen ci ñeex bi naan leen ci ñeex bi jaajëf ah, maa ngi lay ziar bu baax waaye day damay tàggoog yow nag di wax di wax vraiment di wax vraiment yow ah dana de ah yàlla baax la fula fayda jom fit ngor lu la ko des léegi nag non déet balaa ñuy tàgg booy tàggoo kay dama lay joxaat échange waaw waaw tey moom zéro stress la kon Cheikh bi laa lay tàggatoo <laughs> xam naa à très bientôt di la remercier nag waaw ci di la remercier bu baax parce que ci Cheikh ci ñi ma faj ci la bokk parce que garab yu bare bare bare bare ah boo ci taxaw bu jógee ba États-Unis ñëw pour garab lépp façon sama kër comme pharmacie fi mu nekk nii moom laa sama kër comme pharmacie ah kon gars yi ah vraiment gis nañ taxawaay bi maa ngi doon jéem a xool tamit euh, le député Aliou Sall parce que xam nga Guy Marius mi ngi foofu député Aliou Sall maa ngi ko doon jéem a xool moom it na ko mais député euh, moom xam naa moom tamit mi ngi ci manifestation parce que ñoom normalement ni ngi ci mani waaju manifestation mais peut-être dafa xam naa dafa jàpp jàpp le député Aliou Sall honorable député parce que Guy maris, mi ngi foofu moom it euh, France parce que xam nga lii yëpp lu ko indi ah mooy liñ xañ sénégalais yi jàmm doo manifester arrestation arbitraire ah lu lee mooy xew fii dégg naa nag li ñuy ruumandaat ma wax ko yi léegi bëgg nañ lu fi yëngatu bañ am prétexte pour randal élection yi loolu la ñuy ruumandaat loolu la ñuy ruumandaat bëgg nañu am prétexte bu ñu langaamu une manifestation voilà, muy dans ces conditions là on ne peut pas organiser des élections en 2024 ou prétexte pour rendre kenn randalul élection élection février élections 25 février 2024 sénégalais yi dem ku président de la république te xam nga man lan sénégalais yi dégg ko man damay dégg ñoom seen wax yépp ñu ne c'est le meilleur président de l'histoire du Sénégal maanaam li fi Macky Sall def boo boolee Senghor Ablaye Wade Abdou Diouf ñoom ñëpp Macky Sall li mu fi def ñoom defuñu ko fi man de loolu su ma ko defoon non xam nga Yaya Jammeh mas na maa wax benn mbir Gàmbi

mais opposant bi defagul kay moo war a campagne pour wax mais yow ci yoon rek waroo campagne parce que yow boo defee xam nañ boo deful xam nañ parce que yor nga lu tollu ci juróomi at wala juróom-ñaari at kon Macky Sall nee na def na fi lu fi kenn deful Sénégal yi na patt di ko xool def naa fi lu fi kenn deful may daj dëpp li Mike Dalinkour ah hein? ah hein? li ñuy wax may un contemporain xamu koy noonu yooyu yep, man la mais ci mais ci yoon ci yoon yow waroo ragal ku bokk ci élection parce que normalement si le peuple sénégalais est très content ci sa liggéey koo ñëw même buñ ko xamul koo ñëw na leen li ma def te bëgg mu wér si réew mi kii kii laa gëm ne moom moo ko mën a def kii laa gëm ne moo ko mën a def sénégalais dañuy votel kooku parce que li nga fi def dinañ ko gis mu baax lool tarfakal la macha allah waaye nga ne déedéet du fi amee parce que Macky dafa def ay sondage am sondage am mi ne ko moom sax da koy wax wax na ko sax ay nit ne ko booy bii di Ousmane fara nga ne mooy daam saaj saaj saaj daam saaj gi waaw daam saaj <laughs> alors euh, dégg naa euh, dafa def ay sondage ba léegi ñu ngi seeni sondage xam nga sondage yooyu nag bañ ko defee Nous, dañoo gis ne Ousmane Sonko ci ci ce serait un précédent dans l'histoire politique du Sénégal moy nga il ci élection yalla le premier tour premier tour midi nga lem carte gi ay deuxième tour sax duñ ko wax xam nga man dama lépp loo koy wax ci politique xam na ko parce que moom lay dundee sondage la def nii ci bëtam xool ko gis ko ñu laxasoo ci nan nag français yi tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Sénégal France mi ngi ci ginnaaw wax naa leen ko démb wax naa leen ko démb parce que loolu tamit paradigme boobu foog ngeen xam ko gis nga ñu yor économie française ñooñu ñooy contrôler le gouvernement français ñooy wax ni qui arrangé wuñu qui arrangé wuñu ben exemple la leen ci jox gis ngeen ciow autoroute à péage bi ba fi amé ba gaay di attaquer Eiffage attaqué yu metti diko attaquer l'ambassadeur de la France dem émission ci benn radio. jël la défense de Sénat. Gérard Sénat. Et pourtant dañuy wax ne c'est une société de droit sénégalais c'est une société de droit sénégalais c'est une société de droit sénégalais c'est l'ambassadeur de la France Nous avons mooy temps yin bëggoon exiger ñu wàññi li nga prix tarifu autoroute à PHP. Donc la France est dans le complot à l'heure actuelle contre Ousmane Sonko Lolo va passer faw ngeen xam Ousmane Sonko mo fi ëpp ennemi ak e-, e-, ennemi sax adversaire parce que amna ñoo ne seen bu yeggee te xama yalla lolu mbiru la subhanallah subhanallah subhanallah fi waaye yàlla fa muy defaree nit fekke wu ba mën ko soppi manu la nekk kon may wax rek ne euh, diaspora bi taxawaay am parce que nous xippi seen bët di xool xam ne lii normal. normalul sénégalais amul droit manifester le droit marche man est-ce que soxla ti den préfet wala sous-préfet sax léegi école boobu nañ ko tej parce que préfet sous-préfet yep li a wax de ko ah. interdiction manifestation pour risque de trouble à l'ordre public phrase boobu rek ngay jël loolu soxlawul former nit soxlawul former nit soxlawul former sous préfet soxlawul former sous préfet di yàq suñu xaalis ni yàq su école boobu dañ ko war a tëj parce que ñi ngi yàq suñu xaalis parce que phrase boobu rek lañ xam loolu man mën naa ko mën nañ recruter xale yaa ngi nii am na ñu am bac ñu am bac mën nañ loolu mën nañ bind loolu ñu am bac mën nañ bind loolu préfet sous préfet yi ñu salaire tas ko mu nekk emploi ñu jël yeneen boy ñu jël yeneen booy ñu tëj école bi ñu noppalu parce que préfet ak sous préfet yi loolu la xam manifestation interdite pour risque de trouble à l'ordre point man da def naa ne loolu rek laa xam ne loolu la préfet yi jàng kon loolu bu amee moom taxawaay boo xam ne sénégalais yi dañ ko war a def ci fula ci ngor xam nga ba ma leen wax ne manifestation dafa bëre façon mais mag saal moom war gënoon xam ne bu deme nii du yomb maa ngi doon dégg ku doon wax añam xaw ma reeram ak bàyyi ah, ci dara daal dégguma ci dara ci añam ak wala reeram ak euh, bàyyi doon te xam américain yi moom ah, euh, yomb na seen affaire dafay leer ko lii Tunkara wax sànq doon wax ci affaire euh, ne.

c'est pas vrai C'est akulaay là juriste Ben, ñom rek ko wax amul ben juriste seul diw mo mo wax nga bëgg ci mu la ngir lan parce que dem nga ba sa Ousmane Sonko légui du normale saine mais dem nga ci ba xeen moo ci dugg ah maanaam moom laa daan wax benn xarit ma ne ko mu ma waa ma ne ko nañ téye lépp man bugg ba sax xam nga buñ la bu la joxoon léegi sa passeport ak say bagaas dañuy am ni ko non ooy gis nga lu a rendi ces trucs leen ma xam léegi la lan la may wàññi xeen xam nga yooyu mooy ay gesto xeen gestu xeen la ay xeen bañ bañ mooy bañ te ku dem ba yàlla teral la xoola Sénégal 17 millions d'habitants ñu seppi la ci def le président de la république ak ku mënta doon ak daya joo mënta am booy romb ci télib day wàcc par la force ñu xajal alors donc xam nga am na yoo xam ne foog ngeen dal daal xoolaat ñoom nag ci li ñuy lijjanti ñëwaguma ci dinaa ci ñëw juróomi candidat la lijjanti juróomi candidat la ñuy lijjanti Amadou Ba yu war a bokk ñoom seen seen stratégie yooyu dinaa ci ñëw Amadou Ba Idrissa Seck Khalifa Sall Karim Wade Malick Gakou juróomi candidat la ñuy lijjanti yooyu pour def seen algorithme yooyu pour mën a régler seen problème di fara bëgg lijjanti jàll premier tour avec cinquante xawma la ak cinquante yooyu yëpp ñu koy mais xamu yooyu yëpp yëg nañ ko xam nañ ko xam nañ koy tra mais nee naa leen lu jot yomb nañu bàyyi état bu parrainage bi ba dugg ci ba pare juróomi candidat la ñuy jéem a lewal sen candidat Amadou Ba euh Idrissa Seck Khalifa Sall Karim Wade Malik Gakou ba pare na gagné nañ waaye légui ñom am nañ bu bess bo xamné ne na ci mbir mi ah man dé gaay est ce malade len bu Abdoulaye Dione amul kuko fital Abdoulaye Dione mi nga xamné ne mo doon wax moy double bouton bu Macky Sall sañ a défier Macky Sall nii ah mbaa du belle famille bee parce que belle famille dégg naa kontaanuñu ci Amadou Ba buñ tànn bon yooyu yëpp ay information la <laughs> yu ni ah la ba jaaxal bu laajoon mi den wax la booy duubul bouton mooy bañ waxee ba ba seen coow lu moog Thierno Alassane Sall mi ngi ci livre Thierno Alassane Sall bi ah. Eh, bam na Thierno Alassane Sall bindal euh, bi mu ne ko Thierno Alassane Sall eh, courage aussi ah, du président président de la république duma signer contrat hein, ah ba pare na ko man je suis pas un bouton au point d'exécuter vos ordres mu ne ko la def ko ah man je suis un double bouton boss la don woyé président tey jii mu fit ni, ne day don candidat am na ko fital am na ko ko fital de am na ku ko fital lépp xam nañ ko nag waaw kon daal euh, ma tàggatoo générique bi rek yi ah, xool mu xool bu ne waa pare ñu ngi pare lu luur am na lu ma ci am na lu ñu ma envoyé ma ci joto xool donc euh, pare lu luur nu mu gën a luuree rek baax nu mu gën a luuree rek baax boo leen lu ëpp lu ñu yor ko def day baax rek day baax rek day gën a de gën a baax rek ah wala li ko gaay day gën a ruppuj puuj wala day gën a ruppuj puuj ah ah loolu la ki day gën a ruppuj puuj ñu mu gën a ruppuj puujee rek baax kon gars yi kontaan naa woon trop gën a luur gën a baax loolu ni ko Cheikh waxee gën a luur gën a baax c'est très bien waaw waaw la de waaw kon gars yi kontaan naa woon trop tey nekk ak yow zéro stress gis nga nuñ ko dundee ma jox kàddu gi euh, waa diaspora New York avons fait wàcce affaire ba mu nekk kon Paris ñu na lu ñuy xaar Genève car bi war dem de Union européenne car bi war na de ah yéen ñëpp di sant ñëpp di bigam ñëpp El malik nee na ngeen leader Ousmane Sonko am na ñu may laaj information ci moom chaque jour dina am information mi ngi ci jàmm bu mi ngi ci jàmm bu baax a baax a baax sant euh, bu baax a baax timit ne ndigal li ko sëñ muntaxaa santoon mi ngi ci ba tey dañu ci ndax nee na kàddu kilifa jëf lu tudd kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dig daje incha allah ci beneen waxtaan rek ñu gën a yaatal jërë ngeen ngeen gaay bigam